boo amoon loo téye di nga noppi waaye bi nga bañee déglu rek laa xam ne amoo loo téye Adamo Wally Seck dafa tiim yaa gise di sànni xaalis ci suuf nga ne loolu baax na mu dem màkkatul ma tiim kaaba gi di ñaanal ndeyam ju baax ji barongoñam di tuuru ñu filmer ko nga génn ñaawlu loolu saboté dem màkk ak yi ba ne cagaj yëpp dañuy dem kattante dem màkk xam nga lu taxoon nga def loolu parce que danga am xew waali newut la félicitation loolu nga mer nga saboté dem màkkaam saboté ñaan gim ñaanal yaayam nga ne danga nga juboowaat ak mu sànni xaalis ci suuf nga ne ko defal lu la neex analogique bi ba pare kay ma xamal la dara ci wali sek wali bandi la say say la te wali duy da fay ous wali su ousé rek ous na xam nga kagn la la wali ous bi nga eum di badian ak amé Thiou di andak bayi wali, ba wali mag ñu andak mom def ko xarit def ko dom ba pare don patron wali don sen patron sa xariti bàyyi sa waye ñom dunduñ baye ak dom dañu dundu ne wali moy sen patron nga jaxase leen parce que adama yo mëno ka sa yo wax rek ki lay kalo dang koy tuddu amadi Badiane man bima ma amadi Amady Badiane yi bëri laa xam ne Amady Badiane moo lay waxloo loolu naqari waali ba mu tongoog moom di genn adina la leen jubale ba tey bobu ra taxatu ci la la amadi baye wali bala wali ci la la uusee ndax dang koy yakal xaritom bim ñaké amé ñàkkee ëmmadi bajaan la dese nga ñëw yakal ko ëmmadi bajaan motax wali dafa wër ci biir xolam loolu yak ko def li la lii la la uusee waaye ay félicitations li wali wali wali bandi la wali di ciagat loolu daf ko saf mais li nakari wali deug deug deug deug deug deug moy li ko def digënté mak ëmmadi bajaan ba paré mujj di tek vocalu ëmmadi bajaan nga ne yow da ngay demaat fofu ñu bëgg la mënuñ la bëgg billahi wallahi tallahi mënuñ la bëgg baad na tukki manam da nga yaqku te abeccu demam bi dafa marqué Wally parce que Wally day miin Wally day miin nit dof la bu la miinee yaramu neen sax mën na ko def sa kaw am million na la tiyal demal mu ñàkk amadi abeccu mu koy jooy ta noppeegul yow nga dugg ci digganteem ak Amady Badiane jaxase ko moom baw jaaga ci lalu dee la leen jubale mettit boobu nga teg Wally képp ku jege Wally bañ na la te yëgoo moo tax doo dégg kenn ko am valeur ci waali ñëpp dañ lay utiliser rek parce que xam ne ne mun nga ubbi say yu ndaw yooyu noonu wax nit ñi dégg la ñoom ñu dem seen yoon mais waali sentiratut la moo tax bi nga ko joxee <laughs> non waali du nit keroog bi waali téye sa xaalis bi ba ne teraanga gi baax na waaye yaru xaw ma nu mu ko waxee nu ko waali waxee yaru rek xaw ma something like that ma ne allahu akbar papa coon yar na doomam alquran yenentu dafa wax mu ne al ikramu laa yarudu teranga kenn duko delo wali bu delo won sa teranga rek don jam mais daf ko téye ba pare won la ne ling may jox ni jërëjëf mais lima ko gënal moy yaru réglé nga bañ di ma jaxase ak amadi badian mais du ci yegg nante la wali suma talibé la ci nante yi la wa daf na réglé rek réglé moy baña duggati suma digënté ak suma nit ño xamné biñuy formé xamoo won fan la bi amadi badian don summi yërem di jox wali muy sol adamo moo ko tay digënté bobu yàq nga ko doro gey wax ngeen wax wax bam dugg kaso te ba tay talu len amalu len ko ben njëriñ ben njëriñ ngeen ko amalu motax wali santi santirut la ding may jox ni jërëjëf mais lima ko gënal moy yaru reglé nga bañ di ma jaxase ak amadi badian mais du ci yegg nante la wali suma talibé la ci nante yi la wa daf na reglé rek reglé moy baña duggati suma digënté ak suma nit ñoo xam ne bi ñuy formé xamoo woon fan la bi ëmma di bajaan doon summi yéreem di jox waali muy sol aadamoo yëgoo ko tey diggante boobu yàq nga ko Doro Gueye wax ngeen a wax wax ba mu dugg kaso te ba tey talu leen amalu leen ko benn njëriñ benn njëriñ ngeen ko amalut moo tax waali santirut la waali yëgut la yëgut la waali yëgut la parce que dang ko gaañ ndayam ji teud alakhira da nga yobale nakar ci xolu jaga billahi wallahi tallahi ndax papa coon gañu baye ko domam wali mën lu nek wali wali mënal ko lu nek muy domam. taxaw palaasu taaw te du taaw di def lu rafet ci famille coon amet cu dem jaaga di régler loolu mu boole kook deewu muum yi loolu yëpp mitt ci xolam Adamo xamoo lu famille bi du dund nga dugg diggante Eumeudi bajaan ak Wally loolu gën a gaañ jaaga naqar boobu la ñibbee àllaaxira moo tax soo taxawee daan Wally laay topp damay damay ree man mi xam damay noppi rek ma xamne wali bu wali sañon tay doto tuddu turam wali balago sek bu sañon yow adamu da ngay nopi ci mom parce que dang ko gañ gom bu dul ba aduna tukki mu nek magam mumi nga xamne ne moo japp ci carrière bala balaa sek mu febar ya tok ci internet bi siiwal feebari moom yi ne dafa cancer dañoo dagg ay wenam keroog dama tiit famille bi yëpp di la seetaan te yow nga ne faramaren nga ne ci waali nga bokk mu meñ ci diggante dund ak dee waali di ko muñ muy métti muy dundal ay fansam ci musique ndax musicien la Touré naa dem neen bay woy kenn gaañu ñu woy yaa toog ci internet bi wax ne moom yi dafa cancer jaaga di la seetaan di jooy mag bu em ni moom nga foog ne tey waale boobu gis la nga jooyloo yaay waale boobu gis la tey nga def loolu waale boobu daf lay bëgg du la bañ mais santiru la lii mooy pire réalité foo musa dugg na nga leen di défendre ak yàqal nga leen ndax xamoo sa spécialisé nga génn yow spécialité bi moo doon ku kattante nga jot vidéo bi oo ko laaj ko mu xaalis jox ko lës joxe ñu kat nga dekk coxeur parce que yow mongol nga xaaral ma won la kayit bi la allemand jox bexen dorong kayitu bexen dorong leen la jox mooy ku wérul koo xam ne nii mënta mënta def dara donc loolu nag soo ko amee moo tax ku la porter plainte Allemagne sax duñ ko mën a jàpp parce que bexen dorong la nga danga danga handicapé xaaral ma tegal ko ñii Behinderung. Behinderung. Behinderung. Aɗa behinderung. Behinderung. Keytu behinderung nga am. Wiro do nit. Uyul. Behinderung. Behinderung. Fu ngeen ko gisati woo leen ma behinderung. Behinderung. parce que tu yi dañ testa testé xool la xool xool xam ne doon nit ñu jox la kayitu behinderung moo tax mi yaa dem porte la beneen tubaab du ñu koy moo tax om d'affaires yi doon jëflante yooyu di la confier ay dossier nga leen di waxal laa xamul ñoom fu seen tuun la ñuy xalaatee wala lan uyu Behinderung. Ada Behinderung. Behinderung. Behinderung. lii la kon yow Adama maa ngi la bëgg a xamal ne psychological yi du ne li naxari waali parce que waali taalibe Sëriñ Fàllu la <laughs> sa taalibe Sëriñ Abdoulaye Tilala la Chérif Tilala Fall waaye dama bëgg nga xam ne tooñ nga ko